asalaamaaleykum mbokk yi euh, ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam euh, di remercier ñi nga xamante ni ñëpp teew nañ ci salle bi euh, jiital ci aussi press bi parce que tey li nga xamante ni moom lañu fas yéene def ngir mu siiw ñëpp mën ci jot yaakaar naa presse bi rek ñoom ñoo mën loolu kon dañ leen remercier bu baax a baax ci seen liggéey gis nañu ko ñu ngi leen remercier bu baax a baax tey nag dafa doon bés bu am solo bës bu am yitte ci li nga xamante ni mooy suñu liggéey en tant que ADTI ADTI di association doomi Thiès en Italie euh, on ne peut pas parler de l'ADTI sans pour autant ñu wax ci dëkk bi nga xamante ni fi la ñu cosaanoo euh, Thiès comme ni ñu koy faral di waxee Thiès kaay donc toutes les familles n'en forment qu'une la capitale ferroviaire Thiès bi nga xamante ne nii euh, wax dëgg yàlla ñëpp benn lañu donc loolu moo waral tey ba mu tuddee jànqeen ba ni mu tuddee Thiès foo ne cees laa bokk rek wax dëgg yàlla dinañ la jox cër ndax fulla ak fayda bi nga xamante ne nii suñu maam yi suñu suñu bàyyi bàyyee nañu ko parce que ku ne cees di nga ne la porte du Cayor du refus donc loolu dafa am solo eh, ñu am nag ay références yu bëri fi nga xamante ni fi la ñu dëkk euh, duma lim ñu bëri waaye tey bu ñu ne héros national di Sénégal ci Kayoor la muy la Joor Ngoone Latiir kon donc Thiès bokk ci Kajoor kon yaakaar naa jom la ñu mës a xame képp kuy doomu Thiès fulla ak fayda ak liggéey doomu Thiès yi nga xamante ne ni nag ñu ngi fi nga xamante ne nii moom moo di réewum Italie euh, boole seen amamam seen mën-mën seen yéene amal li nga xamante ni moom moo di association boo am solo bi nga xamante ni moom moo di ADTI di l'association doomi Thiès en Italie euh, di amal itam liggéey boo am solo boobaak léegi président dina ci ñëw ndaxte teew na fi tey moom président association doomi Thiès en Italie Mor Diakhoumpa il est arrivé hier euh, fi nga xamante ni moom moo di AIBD am nañu itam suñu suñu papa euh, le doyen Lamine Diong qui est le trésorier de l' association mu ngi nii teew tey moom itam mu ngi fii ak ki nga xamante ni moom moo di euh, commission finance daanañ ko teew nañu Abdou Karim Ñing mu ngi ne le toog ak ki nga xamante ni moom moo di El Hadj Ndiaye Euh, sama ndeyjoor chargé la communication topp ci man ñu ngi itam ak ki nga xamante ni moom moo di Alassane Diop nekk le président commission d'organisation ak nag kenn demul ñu des muy suñu jigéen ñi la présidente commission sociale di madame Oumy moom itam mu ngi nii tey taw tey teew donc muy euh, lu am solo ci li nga xamante nii moom moo di association euh, bi nga xamante ni moom moo di yi mu tombe ak mois d'août Euh, wax dëgg yàlla ñu ci bëri jóge fi nga xamante ne moom moo di Italie ñëw am na ñoo nga xamante nii conférence bi rek moom moo leen yëkkati ndax ñor gi nga xamante ni association bi ñor na ñor na ñor nañu euh, ku mel na que le président wax naa léegi nii il est arrivé hier donc loolu aussi vraiment ñuy saluer aussi courage boobu ak pas-pas boobu nga xamante ni am na ko euh, conférence de presse bi nag li tax ñu amal ko dañuy faral bu ñu demee ba mu yàgg ñu def li nga xamante ne moom moo di taxaw seetlu lu waral juddu bi li ñu def boobaak léegi dinañ ci ñëw parce que président dina ci ñëw euh, madame Oumy Niang dina ñëw itam boobaak léegi action yi nga xamante ne nii euh, def nañu ko muy yoo am solo à travers la région parce que l'ADTI ne couvre pas seulement le département de Thiès mais euh, dafa couvrir trois départements yépp muy Thiès Mbour ak fi nga xamante ni moom moo di Tivaouane dinañ ci ñëw léegi ci li nga xamante ni moom moo di bu ñu joxee parole yi yaakaar naa di ngeen dinañ ko gën a faram Euh, ci kaw loolu nag ginnaaw bi nga xamante ni ni ma wax leen ni nga xam noonu lay programme bi di demee dinañu jox le président ginnaaw bi nga xamante ni le doyen joxe na ñaan dinañu jox ki nga xamante ni moom moo di le président mu présenté ñu ADT yi wax itam euh, ci côté administration bi li nga xamante ni jot nañu ko def ginnaaw président dinañu jox ki nga xamante ni moom moo di euh, madame Oumy la présidente commission sociale moom itam mu wax li nga xamante ni jot nañu ko réaliser président dina dellu siwaat ñëw ci li nga xamante ni moom moo di les perspective parce que li ci suñu kanam yaakaar naa moo ëpp li nga xamante ni moom la ñu wees liggéey bi incha allah mu ngi ci suñu kanam bu ñu noppee nag suñu mbokk presse bi dinañu di leen delloo li nga xamante ni moom moo di kàddu gi ku ci am looy laaj nga laaj ko ci ñu xool après ni nga xam noonu lañ koy organiser bu ñu ci noppee nag incha allahu rabbi ñu tàggatoo ci jàmm ak salaam ba beneen année bu neexee yàlla parce que lii ñuy fas yéene def ni bëgg nañu léegi at bu jot bu ñu dawalee at mi ba mu jeex ñu def taxaw seetlu ànd ko ak presse bi ngir itam Thiès xam fi nga xamante nii fa la ñu jógee ak fi nga xamante nii fa la ñu fas yéene dem kon ci kaw loolu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, di wax rek ni yaa aussi euh, Um, Oumou Diallo Oumou Diallo itam def na teewaayam moom itam nekk fële nga xamante ne moom moo di réewum Italie gisuma ko woon sax Oumou ñu ngi lay souhaiter vraiment la bienvenue mu nekk doyen ci li nga xamante ne moom moo di ADT yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di fas yéene jox président euh, la parole incha allahu rabbi mu fas yéene dalal jàmm gan yëpp jërë ngeen jëf wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare li ñuy njëkk a def mooy di leen balu àq bu baax ci coono yi kenn ku nekk xam na ni tey bisu dimaas la jot amul kon bu ñu mënee daje mbooloo mu toll nii mel na ni bis bi yitteel na leen kon ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax di leen ziyaare di nuyu bu baax presse bi waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoo di ñin àndal liggéey bi di nuyoot ñi nga xamee ni mooy ay kilifa yónni leen ci bis bi ngir ñu teewe ko di wax ni euh, ADT yi muy association doomu Thiès en Italie mu nekk association boo xamee ni ñi ngi ko créer en 2019 sabab bu association bi nag mooy danoo ñëwoon en 2017 fii cees ñëw vacances yàlla def ñu dem hôpital régional seeti fa benn malaat biñ gisee malaat bi mu tëdd ci tëdd ci laa kese ñu xool li ko wër yépp kenn ku nekk tëdd ci mat laa kese ñu ni pourquoi pas ñun en tant que doomu Thiès yu nekk Italie mënunoo jëm ci lii dara ñu xool ba xam lan lañ ci man bi ñu demee en 2017 ñu créé li nga xam ne moo di benn groupe tuddee ko group Thiès ku nu xam ku dëkk Thiès rek ñu dugal la ci tey loolu moo jur ba en 2019 ñuy waxtaan ba ni léegi daal waxtaan bi ci groupe bi doy na nanu fexe nan la ñuy gisee ñu daje à Brescia en 2019 pour créer fa tey li nga xamee ni mooy ADTI muy association doomu Thiès en Italie di sant yàlla bu baax parce que ñii ñu wër tey jour boobu ñoo ñu wëroon ñu waxtaan pour xool lan la ñuy jàppalee ñun ñu nekk doomi Thiès nan la ñuy jàppalee raison bi nga xamee ni mooy raison wu Thiès ci suñu doole ci suñu am-am ci suñu xalaat ak expérience bi nga xamee ni sunu borom may nañu ko damay wax ni jour boobu dama wax lu am solo. dama leen wax ni leen yàlla def na association bi bu demul bu yóbboo ñu bañ a créer créer waat beneen association lu tax ma waxoon ko mooy dama gisoon personne de ressource yi nga xamee ni toog nañ ci taabal ji kenn ku nekk sa jaar-jaar kenn ku nekk am minimum vingt ans d'expérience ci association tey alaaji Lamine mii muy alaaji Lamine Jong kenn ku nekk xam na ni ci mouvement sportif ni mu ci meloon ak dimbali ñi nga xam ne waa Thiès te it ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ànd ak ñun di suñuy frère ak suñuy sœur kenn ku ci nekk noonu nga meloon loolu foofu la ñu jëlee turu ADT yi ñu waxtaan daal di jàpp nag bisu assemblée général defee ko dëkk bu nuy wax Milan ci sunu euh, sunu quartier sœur bi nga xamee ni moo di soxna Oumy Niang ci lan tàmbalee liggéey bi mu doon liggéey boo xam ni dara dara dara lalu ko lu dul yéene dara dara lalu ko lu dul xam ni dañ fee am ay mag am fi ay rakk am fi ay papa am fi ay nijaay am fi ay famille te ñun même bu fekkee yoruñu am nañu benn expérience ak benn expertise boo xamee ni war nañ ko mën a jariñ ñi nga xamee ni moo di moo di moo di cees ci lan tàmbalee liggéey bi nag euh, sunu boroom it dimbali ñu ubbil ñu bunt yi ba ñu am récépissé au niveau de l'Italie am sunu compte waaye ñu am code fii nga xamee ni moo di Thiès nga xam ni tey association bi niñ ko reconnaître en Italie noonu lañ ko reconnaître fii nga xam ni moo di Sénégal mooy lu am solo ñu commencé liggéey bi ñuy liggéey ñun ñëpp dañoo d'accord ci nii ñun xaaruñu dara ci luy jugee Thiès di ñëw ci ñun mais ñun daal nanu xool ba nan la ñuy jëlee tey li nga xam ne moo nekk Italie indi ko fi nga xamee ni moo di moo di moo di Thiès ci raison bi ñu daal di tàmbalee ci ay dara ni nanu fexe ba hôpitaux yi nanu fexe ba case de santé yi ñëpp foo duggati di nga am dara boo xam ni ca ngay lal moom la njëkk a indi indeet ay couches xam naa ni euh, sunu sœur dina ci soxna Oumy dina ci ñëw mais li ñuy euh, taxaw it wax ko moo di ñi ngi sant yàlla bu baax ci autorité yi nga xamee ni nekk nañ fii jàppaleenu ci liggéey bi parce que tey bépp maire boo xam ni yaa ngi ci région bi bu nu liggéey ak yow du nu lim mais bépp maire bu fi nekk rek jaaroon fi wala nga nekk fi am nañ ay relation yu rafet rafet ak yow di gërëm bu baax le préfet ci accueil bi sous préfet ci accueil bi gouverneur ci accueil bi parce que ku dégg rek geste bi li ngay njëkk a def moo di ah yéen nan la ñuy def ba jàppale la ñu ne ñun li ñu bëggoon ñu jàppaleñ ci rek mooy ñu fexe ba këyit bu ñu soxla mu ñëw fii wax dëgg yàlla ñu yombal ñu ko ba léegi des na waaye sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ndax tey ñun suñu objectif li nu bëgg tey mooy taax yi rafet yi ñuy gis ci télé yi hôpitaux yi nga xamee ni am na fa ñu war buñ ko mënoon a déjjati ñëw indi ko teg ko Cees gi maanaam du fanaan fee ñu nekk tëli yi nga xam ne dañ fay daw nga xam mën nga dawal cax di gëmm buñ ko mënoon dindi indi ko fii ci maanaam Sénégal maanaam ñu def ko waaye nag mu njëkk a Cees kon loolu mooy li nga xamee ni mooy sababu ADT yi di sant bu baax ñi nga xamee ni ñoo ma wër parce que mbir mi mënoon nañ koo yëkkati rek bun bu dee ñun rek du ñu dem parce que am nañ foofu ay mbokk am nañ fa mbokk meen nañ fa amee mbokk geño am nañ fa mbokk xame mais association dafa yënguwul ci loolu association maanaam ngëm-ngëm la association dafa am loo xam ni moo leen di boole yow ak ñi nga xamee ni mooy ngeen di ànd di mën a waxtaan di mën a réunion loolu du deret waaye loolu gëm-gëm la objectif la kon ñi mënuma wax ca santuma leen parce que li ñuy daj ci année bu nekk ci di ko ko ci xaalis di ko def ci association bi mais li ñuy daj ci bu ñu wootee ñu dagg seen i ak ni nga xamee noonu la Europe ñàkk temps di dem ba Milan wala di ñëw ba Brescia wala di dem ba Lecco ngir réunir kon yéen mbokk yi tey nga xam ni bu ñuy def yéen a tax ñuy def parce que suñ bopp la defal parce que yéen a nekk fii bu ñu ñëwee fii tey war na leen wax ni leen ñii ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax kenn ku ci nekk représenté na association kenn ku ci nekk lu mu man ak lu mu mënul def na ko ngir association bi kon ñu ngi leen di tàllalaat loxo bu baax a baax a baax di eh, wàcce foofu kàddu yi di jox kàddu gi ki nga xamee ni eh, moom moo yor mbirum social moom it mu indi eh, sunu yéene ci Thiès ak lin fi jote def bu bu paree ñu jox li nga xamee ni moo di presse bi di leen xaar nag ci ay question ci amuñu benn question boo xam ne question tabu la fu ngeen bëgg rek man na mën ngeen a laaj bu ko defee ñu wax leen ci li nga xamee ni incha allah moom lañ xam di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. tout d'abord nous tenons à vous remercier d'avoir répondu à notre appel c'était pas évident pour venir ici un dimanche soir nous remercions le conseil départemental pour ce cadre mais nous remercions aussi votre consoeur Awa d'avoir orchestré cette conférence de presse comme l'a dit mes frères euh, l'ADTI est née en 2019. C'était en période de Covid. Mais malgré ces difficultés, avec nos cotisations mensuelles de chaque membre et nos partenaires, on a pu réaliser des actions. Parmi ces actions, la première action que nous avons pu faire, c'est de financer des Thiessois qui vivaient en Italie mais qui traversaient des difficultés à cause du Covid. Ces Thiessois-là ont reçu une somme assez conséquente qui les a permis de traverser cette période. Après cela, la DTI a distribué plusieurs dons, en commençant par le conseil départemental de Thiès, de Thiès d'une valeur de 330 millions de francs CFA en médicaments, en couches, en draps de lit, en, en gaz et en tenue d'infirmerie. La maison d'arrêt correction de Thiès a reçu trois fois les membres de l'ADTI avec des dons, des détergents, des couches, des draps de lit. La préfecture de Thiès a reçu aussi une délégation de l'ADTI, la mairie ville de Thiès, la commune de Thiès-Est, la commune de Thiès-Ouest, la commune de Thiès-Nord, où l'ADTI est allée le remettre de manière symbolique un lot de masques parce que nous étions en période de Covid. Après cela, l'ADTI a eu à doter plusieurs structures sanitaires au niveau du département de Thiès. Le poste de santé de Mbour 3, cabinet médical Sud-Estade, poste de santé de Parcelles Assainies, Darou Salam, poste de santé de Ersan, le poste de santé de Randoulène, le poste de santé de Tahikaw, le poste de santé de Mbour 1, le poste de santé de Kër Saïb Ndoy, poste de santé de Cité euh, de Kër Ablaye Yahine Diop le poste de santé de Ngoundane le poste de santé de Mboro le poste de santé de Bangaj Samb le poste de santé de Noto le poste de santé de Kër Mousso et enfin l'hôpital Mam Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Nous avons aussi donné des dons au centre social de Thiès, à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles INEFJA, dont le représentant est ici présent, à l'école de basket des handicapés de Mbour 1. Nous avons fait une action qui était le socle, parce que assez représentatif pour tous les membres que nous étions, euh, nous avons pu fournir à la morgue de Diakhaté Gueteigne un climatiseur qui était en panne depuis plusieurs mois. Nous avons construit une douche et équipé la chambre d'une vieille tiessoise de la zone nord qui traversait des difficultés. Au total, durant ces cinq ans, l'ADTI a donné des dons en nature d'une valeur de 300 millions. Ces dons-là ne pouvaient pas se faire sans la participation des membres que nous tenons à remercier, mais aussi sans la participation de nos partenaires. Mais nous tenons à remercier spécialement l'équipe qui était ici au Sénégal sur place. Parce que nous, nous étions en Italie, mais il y avait une équipe qui était ici sur place qui était chargé de la distribution. Et à leur tête, il y avait notre frère Mafal, que nous remercions. Mafal Sek, que nous remercions de tout cœur, parce que la eu à ploté le travail ici sur le terrain. Nous remercions aussi Hassan Diakoumpa, qui nous a accompagnés, et Baba Mbaye. Nous lançons un appel aux autorités de la, du département de Thiès, mais surtout aux Thiessois de la diaspora, de venir intégrer l'association Parce que Thiès nous a, soit au CMALIC, soit au donc Thiès nous a tout donné. C'est ce, le moment de lui rendre ce qu'il nous avait donné. Nous lançons un appel aussi au président de la République d'écouter, en tant que père de la nation, ces fils qui sont des Thiessois, ces fils qui, malgré le fait qu'ils sont loin du pays, pensent Thiès et vivent Thiès. Parce que tous les mots du que vous le sachiez ou non, chaque fin du mois, avant de faire quoi que ce soit, Ils pensent à leurs familles qui sont loin avant de faire quoi que ce soit donc mbokk yi ni ko waxee ADT yi mu ngi judd ci jamono ja nga xam ne jamonoy Covid la mais jamono jooju lu muy tar tar tar yëpp cotisation membre yi ak partenaires yañ fa amoon tax na ñu def ay action action bi ñu njëkk def mooy dafa am Thiessois yi nekkoon foofu Covid bi tax seen liggéey arrêté amatuñu woon wax daanaka lu ñu doon dundee. avant gouvernement ba fa nekkoon jamono jooju di wax ndimbal fekkoon na ADT yi doomu Thiès yi dajale seen biir di dimbale Thiessois yi fa nekk ndax dañoo newoon ne doomu Thiès warul nekk biir itali di di di am tolof tolof te ñu jun ñëpp ñu jóge Thiès. bi ñu paree ci loolu nag ci la ñu waxtaanee suñu biir ne ñu ñii ñëpp ku ci nekk amaana koñ ba nga dëkk. am na poste de santé wala amaana koñ ba nga dëkk am na structure ba nga xam ne boo fa duggee sa yaram day daw ndax amaana doo fa fekk lal wala boo fa fekkee lal doo fa fekk matelas wala boo fa fekkee matelas dara ba nga fay fekk day doy waar ba nga xam ne ñu ne ku ci nekk war nga mën a dugal sa loxo na ma ko waxee woon ñun ñii ñëpp ñenn ñi Cees lañu juddoo ñenn ñi Cees lañu yaroo ñenn ñi Cees lañu jàngee ku ci nekk Cees defal na la la nga xam ne ne mënoo koo fay lu dul jéem a fexe as tuut li la yàlla may wala as tuut li nga mën nga delloo ko Cees te loolu la waa arrêté yi taxawee looloo tax structure yi nga bëri dimbali nañ leen ñu commencé par conseil départemental de Thiès bi nga xam ne ne tey fii la ñuy defee point de presse bi don bi ñu njëkk indi muy don de 30 millions ñoom la ñu woo jox leen ko ndax boobu xamuñu guwoon nit ñi ñoom lañ ko jox ne nañ ko distribuer seen bopp ba ñu paree ci loolu ñu ne ah ñun kat dañoo bëgg li ñuy joxe yegg ci askan bi ci ñuy jëgal suñu bopp di dem ca poste de santé yi directement poste de santé yi ñu dimbale nag dimbale nañu bu Mbour dimbale bu Sud Stade bu Parcelles Assainies bu Daaru Salaam bu Ersan bu randu leen bu Taaxi Kaw bu Mbour 1 bu kër Sayib Ndooy bu Cité Ñax bu kër Ablaye Yaxin Diop bu Ngunjaan bu Mbooro bu Bangaj Samb bu Nooto bu kër Muso waaye surtout nag dimbali nañu hôpital Maam Abdou Aziz Sy bu bi ñu paree ci loolu tamit dimbali nañu maison d'arrêt correctionnel de Thiès mooy ñi caabi féete gannaaw nga xam ne mënuñoo dem ñu demoon fa yóbbu fa dimbal dem nañ fa fax ñetti yoon ndax def nañu 6 mois yu nekk ñu dem fa bu ñu demee yóbbu leen la nga xam ne ne lu ci bëri dañ koy soxla ay détergent ay drap de lit lépp la nga xam ne daal ñoom ñi nga xam ne caabi féete nañ ko gannaaw dañ ko soxla yóbbul nañ leen ko préfecture de Thiès ak mairie Thiès ak ñetti mairie yëpp Thiès est ouest nord dem nañ fa yóbbul leen ay masque ndax période boobu dañ ko doon soxla ñu yóbbul leen ay lot de masque yu conséquent yi nga xam ne moo nekkoon suñu apport bu leen di jox waaye tamit fàttewuñu le centre social bu Thiès ya nga xam ne ne dimbali nañ leen bu baax a baax institut national INEFJA aveugle yi suñuy rakk nga xam ne ne yàlla dafa def ne seen gis-gis dafa doy waar gisuñu bu baax dimbali nañ leen dimbali nañ tamit handicapé yi nga xam ne ne ñoo nekk Mbour 1 nga xam ne ci ay chaise dañuy toog ñu yóbbu leen materiel bu am foofu solo doon nag bi nga xam ne ne moo gënoon ñor ñun ñëpp ba nga xam ne ba ñu ko wax bi nga xam ne ne mi ngi nekkoon jaxate géej teeñ nga xam ne ne climatiseur ba dafa yàqu woon ba néew yi ñu fa daan denc di xaw a taga témbe bañ ko yëgee membre yëpp a ci jàpp ba ñu defaraat climatiseur mu doon don yi joxe yëpp boo bokk na ci ñu gën a marqué ñun ñëpp dimbali nañ tamit benn maire ba nga xam ne ne benn euh, assistante sociale moo ko signalé mu dëkkoon moom kese dëkk bu dëkkin bu xaw a doy waar ñu tabaxal ko nekk defar ko douche jëndal ko lal ak euh, la ba macha allah waaye loolu lépp buñ ko mënee ñii di cotiser tax ak partenaires yi mais loolu yëpp bu ñu ko mënee dafa am équipe ba nga xam ne ne moo nekkoon fii sur place ndax ñun ñi ñëpp ku ci nekk ñi ngi Milan ñi ngi Brescia ñi ñoo ngi Lecco ku ci nekk dëkk ya nga nekk Italie yaa ngi fay liggéey doo mën a nekk chaque fois fii sur place mais dafa am équipe bu nekkoon fii ba nga xam ne ne bagage yu ñu yónnee ñooñu doon dimbale bu baax ci tetu équipe boobu Mafal Seck Assane Diakhoumpa ak baaba mbay fi ñu toll nii nag dañuy tàllal loxo Ceesuwaay yi nga xam ne ne ñoo ngi ci diaspora bi fu ñu mënti nekk ndax amaana suñu ni jóg moo doon yam biir Italie ba tudd association doomi Thiès yi nekk itali ñu tàllal képp kuy Thiès waa ku nekk Italie ñu ne nga ñëw dugal sa loxo ci association bi ndax xam na ne boo ko defee tamit def nga sa wareef ndax Thiès desalatu la dara bu ñu tàllalee ñooñu loxo ba pare ñu tàllal loxo bépp moodu moodu ak faatu faatu bu nekk ci diaspora bi te dëkk Thiès waaye ñuy tàllal loxo tamit autorité département bi ndax ñu li leen di wax rek ñëwuñu pour ñaan leen mais dañuy bëgg ni ko président di waxee bu ñu soxlaa yenn këyit yi ñu faciliter ñu ko ba nga xam ne ne li ñuy indi duñ ci am ay jafe-jafe waaye tamit ñuy tàllal loxo suñu njiitu réew le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax kat seetlu nañu ne ñoom ñëpp buñ ciy campagne ñoom ñëpp ay dem ci diaspora bi ñu ñëpp ñuy soxla waaye ñun buñu leen di soxlaa duñu leen di gis bu bëri comme moom nag mooy bàyyi njaboot moo ñu njabootee ñun ñëpp ñun doomu waa Thiès en tant que njabootam ñi koy tàllal loxo ndax ñun kat feeñu ne bu ñu soree tamit suñu xel a ngi fii suñu xol a ngi fii ndax moodu moodu bu njëkk yeewu lu muy njëkk xalaat woo njabootam bi nekk fii waaye tamit bu weer bi deewee lu muy njëkk xalaat yónnee fii kon de manière ramassée loolu lañ ne woon dinañ leen ko wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di sant journaliste yi seen teewaay ndax mënoon ñu leen woo tamit tey dimanche bëri na programme ngeen joxe gànt di sant conseil départemental ci salle bi ñu jox ñu organiser lii waaye di sant votre consoeur Awa mi nga xam ne ne moom moo piloté journaliste yëpp donc pour tënk wax ji loolu la amoon pour wax di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam. Euh, buonasera tutti. Eh, oggi è una giornata un po' particolare, molto importante per l'associazione ADTI, Associazione Domices in Italia. Eh, è un'associazione senegalese riguarda una città, una regione che si chiama Ces, tutti quelli che vivono in Italia, che, vivono a Ces, che fanno parte di questa regione, eh, siamo riuniti a un'associazione che si chiama ADTI. ADTI è un'associazione dello sviluppo sanitario, scolastico e, e sociale eh, che è nata nel, abbiamo fatto tantissime cose Oggi, oggi è una giornata molto importante per noi perché stiamo facendo con questa conferenza di stampa che, abbiamo, che stiamo facendo adesso a CES, eh, eh, qua, qua, con la presenza di tutti i membri eh, dell'associazione, la Presidente è molto importante che eh, è presente anche la Presidente Commissione Sociale, Eh, ringraziamo tutti, anche i nostri partner che sono in Italia, eh, che hanno aiutato tanto l'associazione, le fondazioni che hanno aiutato l'associazione per molti anni e speriamo di andare ancora avanti con loro perché abbiamo bisogno, la nostra città ha bisogno eh, eh, la nostra popolazione abbiamo bisogno da, di vostro aiuto e siamo ancora presenti, siamo ancora qua e aspettiamo ancora vostro aiuto eh, noi vi ringraziamo tanto, ringraziamo anche la stampa eh, che sono presente qua oggi, eh, 11 agosto 2024, ringraziamo tutti i membri che sono in Senegal adesso e anche gli altri che sono venuti per questa giornata molto importante per noi. Sì, eh, e ringraziamo tutti. E, e vi daremo appuntamento l'anno prossimo per un altro incontro riguardo a tutto che abbiamo fatto durante l'anno grazie sa première question nga ne lan moo tax ñu bàyyi ba heure bi di def conférence de presse bi ndax dañoo bëgg dugg ci sóobu ci langue politique bi ma bëgg la wax ne ne ADT yi ñun duñu politique association la ba nga xam ne ne ab politique membre yi ne ci biir nag bëri na ay politiciens yu jóge ci parti bu ne mais l'association en tant que telle ADT yi duñu politique lu tax ñu bàyyi ba tey nag di def conférence de presse bi li ñu def fii yëpp Thiès ci cinq ans yëgoo leen ko woon ndax mosuñoo dem fenn di yóbbu ndimbal ànd ak journaliste parce que dañ naan kuy dimbale nit ànd ak journaliste nekkatul ndimbal gistal la moo tax dañ daan dem ñun dong joxe amaana bu ñu paree dugg suñu bureau dem nañu mag de Thiès da tey lii lañ fa yóbbu dem nañ ne poste santé bii lii lañ fa yóbbu rendre compte suñu biir mais dañoo na tey jot nañu woo leen fësal liggéey bi après cinq ans d'existence ñu xam ne ne kat ñi ñuy seetaan wala ñi ñuy déglu wala amaana ñi toog ci salle bi xam na ne am na ay doomu Thiès ya nga xam ne ñu nga Italie waaye seen xel a ngi fii amaana kenn ci ñoom koñ ba mu dëkk hôpital denn naax moom amul mat laa amul lal mu ne ah nan laay def kat ba association bi loxoom yegg fi ñu ne la bindal lettre yónneel commission sociale dina ko jox président euh, bureau bi bureau bi bu validé bagage yu ñu am ñu jox la looloo waral tey conférence de presse bi pour fësal action yi nga xam ne def nañ ko boo baax léegi ba tollu fii mais du pour duggu ci politique te ñaanuñu yàlla duggu ci politique ndax association bi ngir dimbale nit moo ñu tax social moo ñu tax di jóg beneen bi ci des concernant limigration clandestine am na ka nga xam ne mi ngi laaj ñun luñ ci def nit ñi toog fii de Italie umpule woon ne chaque année day maye ay këyit day am ay flux ya nga xam ne day day am flux yi ça dépend année bii ñu ne lii la ñuy soxla ñii la ñuy soxla lii wala lii la ñuy soxla à chaque fois bu amee président day tàmm naan ñi nekk Italie di liggéey yor seen bustu paaga nañu xool ñan lañu mën a dugalal këyit du benn yoon du ñaari yoon xale ya nga xam ne jaar nañ ci gàll gi yegg si ba foofu nekk des sans papier ay membre ADT yi accompagner leen jël seeni contrat de travail jox leen ñu déposer pour am seen i këyit pour mën a ñibbisi c'est vrai que nag au niveau du pays mooy maanaam fii ci Thiès wala fii ci Sénégal defaguñ ci ay jéego jëm ci xale yooyu ndax dama ne xale yi jël gars yi amaana mirage mooy tax ñuy dem amaana ñàkk xam réalité wala amaana jafe-jafe pour am këyit ba leen di yóbbu ca réew ma moo tax ñuy dem ci gaal ba xëy na bu visa yomboon ci ñoom kenn du ci jël gaal kuy dem avion ngay dugg xëy na bu ñu leen doon may këyit yomb ci ñoom yu bëri duñ ko def association bi joxagul ay jéego jëm ci côté boobu pour sensibiliser mais xale yi jaar ci gaal yi nga xam ne ne bu ñu ñëwee biir Italie wàcc lampunaano ñu distribuer leen ñu ñëw fii ñu fi toog je pense que association bi am na 4 ou 5 médiateurs yi nga xam ne seen liggéey moo di traduiral xale yi seeni i document pour ñuy mën di déposer pour am kayit te association bi li ñu ci mën ñu ngi koy def même bu fekkee ne lu ndaw la par rapport ak fléau ba fu mu toll euh, beneen bi ci des am na ku ne lu tax ñuy dimbale structure santé yi rek structure yi structure yi tamit sa dépend ci suñu partenaires yi xëy ñoo ci gën a bëri ndax xëy na partenaires yi ñu amoon foofu ni ñu may ay lal d'hôpital di ñu may ay drap d'hôpital di ñu may ay ay déambulateur di ñu may ay matériels yi nga xam ne yëpp ci hôpital la moo ëppoon fuuf ba nga xam ne ne ñun suñu xaalis bu ñuy jël dañuy fay ay mille euros muy 2 millions wala ay 1500 euros paasal ko mu ñëw bu ñëwee fii affaire hôpital doo ko may ku dul hôpital affaire hôpital doo ko may ku dul structure sanitaire moo tax ñu koy yóbbu te même ci may boobu tolloowuñu ñu leen jox ndax am na poste de santé ba nga xam ne amaana soxlawul lal am na lal bi mais matelas la amul wala am na matelas drap la amul am na ñi nga xam ne lal boobu fax amuñu ko ku ci mel ni Bangaj je me rappelle ñun ñoo leen jox ay lal yi nga xam ne waa Bangaj Samb ñoo ñoo ñoo équipé poste de santé bi donc may bi tolloowul mais lu tax ñu ciblé leen parce que loolu lañ doon am ci lu bëri mais fu mu nekk nii boo xoolee biiru association bi dañu naan les couches vulnérables couches vulnérables yi mooy ñi nga xam ne néew di doole lañu moo tax à chaque fois assistante sociale dañ leen di wax foo leen gisee cas pas plus tard que nii ma toogee nii rek bu ñu ñëwee ci salle bi jot nañu ñaari demande ya nga xam ne kenn ki ñun xamuñu ko duñ ci xam kenn ñu ciy dimbale ñu bëri xombal la dëkk ñu yónnee ñu vidéo bi day ñaan dimbal doomu Thiès la bu ñu ko dugalee ci bureau bi dañ naan na ku nekk joxe loo am ñii 50 euros ñii 100 euros bu ñu dajalee xaalis boobu yónnee ko te amaana du am benn membre bu ko xam te lépp nag wóolu rek ki ñëw ne kii laay joxe ndimbal ñeneen ñi dam damay tijji daara internat arabe ay inef ay aveugle ñoo fay jàngale ñoo fa war a ñëw jàng si soxla naa laa soxla naa lii ak lii ak lii par confiance bu ñu ko jëlee pare yóbbu ko ci bureau xool commission sociale ne lii yan bagage dañu amagum instant bi ya nga xam ne ñu ngi Sénégal ñu wàcc leen dépôt ak yan bagage lañuy xaar pour am ci bagage yooyu la ñuy jël pour yóbbul leen ko mais comme ci perspective yi kii nu mu ko waxee ñu ngi xalaat tabax centre ba nga xam ne xëy na ñëw di doole yi bu ñu amatee yenn jafe-jafe yi dañuy jubal foofu directement xam na ne bu ñu demee ADTI la ñu soxla nañ ko fa fekk ndax ñun li ñuy wax li ñuy joxe dañu bëgg mu yegg ci population bi ndax amaana mën nga jox structure te du wàcc ba ci population bi moo tax booy xool couche yi ñu indi woon yu bëri fax ñu ñoo demal suñu bopp jox ko les femmes yi nga xam ne dañ leen césarienne directement ñu fekk leen hôpital régional dem visite jox leen ko directement nga xam ne ñun ndimbal bi dañuy wóor na ne ki ñu tax a jóg muy la femme bi ñu opéré mu am jafe jot na si beneen tamit bu ma waroon tontu mooy lu tax ñu yemale ko ci doomi Thiès am na ñaari journaliste yu ko posé. waaw euh, waaw Walf tamit ko nañ ko lu tax ñu yemale ko xam nga dañ naan bay sa bay say wowu tànk ñun d'abord dañ ne buñ dajalee Thiès waa diaspora bi yëpp rek on a atteint notre objectif asuma nag waxuma la immigré diaspora bi yëpp ndax ça je pense que ce sera utopique nga ne immigré yu nekk ci diaspora bi yëpp nañ leen dajale ci benn association Thiessois yi nekk ci diaspora bi yëpp ce sera difficile nga dajale leen ñun ñi nekk Italie fa man fa ma dëkk ca Italie Milan kii fa mu dëkk ca Brescia yaa combien de kilomètres bu ñuy séparé que dëkk Lecco tellement dëkk ba yaatu na kilométrage yi ñuy séparé gudd na ba nga xam ne ne bu ñuy dajee sacrifice yi ñuy def rek bu ñu newoon dañuy jël euh, doomu Thiès yi nekk Europe dina jafe mais loolu bokk na ci suñuy perspective ñu yaatal association bi ba fépp doomu Cees ba nekk Amérique ba nekk Europe ba nekk Asie yii yëpp ñëw daje ci association bi. je pense que question yooyu laa nee woon dinañ ci tontu à part structure yi bëgg nañ jàppale école yi yenn écoles yi ndax xam nañ ne bu nawet bi jotee mën bi day dugg ci école yu bëri école yi ñu mën a jàppale en fonction ko suñu doole fu mu yem bëgg nañ leen jàpp bëgg nañ leen jàppale waa prix euh, mag de Thiès tamit dinañ continuer li ñu am di leen yóbbu di leen jox buur wala ma nga jëm feneen nga xam ni tey benn nit bu nekk fii rek muy notre frère Mafal war na ko mën a lijjanti man tak tak mu dem ñu seeti leneen mais bu fekkee ni da ñëw indi ay bagage bagage yi sonn ci lool du la du la du la du la du la encouragé ci ci ci li ngay liggéey kon euh, amul dara lu ñuy xaar ci maire yi lu dul ñu ànd liggéeyal askan bi loolu mooy li ci njëkk prestige ba léegi wax na ni ndax ñun ci santé rek la ñuy liggéey non dinañ liggéey ci santé dinañ liggéey ci yeneen yeneen mbir waaye danoo jàpp ni nit ki bala naan nga naan naam da nga fay nekk ku wérul doo def dara te comme wax naa ci njëlbeen ni objectif bi objectif bi wax naa ci njëlbeen ni objectif bi moo doon ñu dem hôpital gis koo xamee ni dafa tëdd ci lal mu naqari ñu suñu xol tooy ci ñu dem def loolu loolu moo taxoon ñu ni nan njëkke foofu mais boo xoolee ci cartel bi nga yor ci ginnaaw mais dimbali nañ ñi nga xamee ni ay ay ay ay ay école football lañ yor indi nañ fii ay matériels yoo xamee ni damels bu bu Thiès euh, damels bu Tiwaawan ex damels ñoom lañ ko jox euh, stade équipe bu deuxième équipe bu première équipe bu division bi nu mu tuddee di bu Thiès seneps seneps yóbbu nañ fa loo xamee ni keroog bi ñu koy tegee ma ne ko ah ñi ngi koy xeeb de mu ni ma laay suñuy jour élesto bii buñ ko amul du nu fubal am na jour yoo xam ne du nu fubal te lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt lañ leen joxoon wax dëgg yàlla mën nañ ci yor benn saison kon ñun du question ni euh, wax dëgg yàlla santé rek la yëngu mais bàyyiwuñu dara ma wax na ko léegi nee na am na ñoo xam ni ñu ngi leen di dimbali dem tabaxal leen douze dafa leen mais moyens yi moo maanaam li nu bëgg moo ëpp sunu doole fi mu nekk nii fi mu nekk nii rek ci biir bureau bi wax na ko am na ñaari demande fekk na fa ñett yeneen quatre demande yoo xamee ni wax dëgg yàlla dalay leer ni kii war nga koo dimbali waaye am-am bi moo fa nekkul kon ngeen bokk yéen ñëpp ñaanal nu ba li nu bëgg ci askan wi kenn bañ a tëdd waaye ku dëdd ñu mën a am loolu la jox ba nga jug beneen bi moo di euh, Kabir yaa ngi wax problème communication mooy lépp ah tu raison wax nga dëgg suñ communication desoon na lu bëri parce que li soxna si wax léegi moom am na nanoo ñëw fii yor benn affaire ànd woo leen yéen ñëpp ngeen ñëw ñu ànd dem joxe ko mais lan lay jariñ est-ce que boobu li ñu doon wax nu dëgg la ci ñun mais nag dafa après juróomi ak yoon la ñu taxaw def ak jàngat def seetlu maanaam wax fi nga xam ni fa lañ jóge mais wax leen nit fi nga li nga xam ni moom lañ bëgg perspective yi la fa lañ bëgg a dem mais dëgg la communication bi desoon na mais désormais à partir de de tey yaakaar naa ne fu nu tollati ci liggéey bi yéen ñëpp di ngeen ko xam pour mën koo jàllale ci aso ci ci nit ñi ñu xam ni am na association boo xamee ni mi ngi taxaw pour doomu Thiès beneen bi ci des moo di waa Walf def naa mooy dernière question bi euh, bu fekkee ni euh, juumuma mu ni euh, ADT yi est-ce que dañ ko yamale Italie rek mënuñu ko yaatal Euh, soxna si ñu ngi lay sant bu baax mais bañ na ko ba dañ ko wutal commission te yaakaar naa ni ñoom ñii duñu bàyyi ma fen am na sunu frère bu ñuy wax jaaji ndaw mi ngi ciy dox mais danoo waxoon ni bay ci say oom comme que association bi Italie la jógee ñu ni le 2019 ñu créé ko Covid dugg ñëpp am ay problème pour nga communiquer pour nga génn nanu fexe ñun ba lii nga xamee ni mooy ADT yi bu bu bu bu Italie mu dëgër ñu am suñu récépissé ici à am ko en Italie nit ñi xam ñu ñu doog a jàll feneen mais ñu ngi lay assurer incha allahu rabbi fii avec peu de temps di nga dégg ADT yi mu yaatal ko en euh, en France ci ci euh, Belgique partout en Europe ba am na nu yéene cax maanaam mu daj li nga xam ne moo di àddina parce que mbooloo mooy doole. ADT yi mbaam membre yi mu am tey bu bu bu bu ci dollee lu toll noonu liggéeyam dafay dolliku te bu boobaa njariñu waa Thiès la rek kon ñi ngi tàllal loxo yéen ñi ngeen dimbaliñ ci képp koo xam ne dem nga képp koo xam ne dem nga xam ab Thiès wa bu nekk Italie nga ne kon baa bokk nga ci ADT yi numéro baa ngi nii wala bokk email baa ngi nii ñii kat li ñuy def nangam ak nangam yéen nit ngeen am ci rôle bu mag boo xam ni war ngeen ko jouer ci moodu moodu yi nga xamee ni wax dëgg yàlla ñëpp ñu bari danoo mel ni man muy participer ci social dafa doon seen problème kon je pense très bien que euh, incha allahu rabi euh, dinañ ko gën a yaatal ba mu gën a am solo yaakaar naa ni euh, loolu su ma juumul bu fekkee am na question boo xam ne des na wala ku bëgg a dolli mu sommes prêts pour répondre ndax yàlla bi mu bindee àdduna dafa ne li tax ma bind ko mooy ngeen jaamu ma binduma nit ak jinne lu dul ngeen jaamu ma wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yaabuduni waaye tamit importance ñëw bi ñu ñëw fii lii def cee bokk xoolal ay mbokk yoo xam ni dañoo am xelum fa ñu dem yaakaar ni mën nañ faa jële njariñ indil ko mbokk yi ñu fi bàyyi loolu yaakaar naa ni lu am solo la ba tax na yonent bi sallallahu dafa wax ni ci xadis man nafasa an muminin kurba min kurabi dunia nafasallahu anhu kurba min kurabi yawmil qiyaama mu ne bépp jullit bu fajal sa mbokkum jullit njàqare ci àdduna bu yowmal qiyaama yàlla fajal la sa njàqare te yaakaar naa fekk koo xam ni dafa sonn wala mu soxla dara lu mu mën a suturloo amu ko nga fexe ba indil ko ko fajal nga ko njàqare kon association bi yaakaar naa euh, association bu am njëriñ la yonent bi waxaat ci beneen xadis mu ne man kaana fi xaajati axiihi képp ku nekk ci sa aajoy mbokk mu ne kaana allahu fi xaajatihi mu ne yàlla yow dina nekk ci sa aajo yonent bi waxaat ne maa loolu sax mën nañ wax ni aaya la man kaana fi xaajati axiihi kaana allahu lahu fi xaajatihi képp ku nekk ci sa aajoy mbokk yàlla subhanahu wa taala dina nekk ci sa ci sa aajoy bopp kon lii dañ koy saluer di ñaanal yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xalaat ba sos ko yàlla dëgëral leen kattanal leen ba lépp loo xamante ni yaakaar nañ ni fu ñu ko mën a jëlee ci àdduna bi nañ ko indi ngir seeni mbokk yi ñu fi bàyyi yaakaar naa ni loolu lu am solo la. kon président ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal euh, yeneen membre yi ci des yépp nga xam ni ñoom it seen xel ak seen xalaat bu dara lu dul dimbali jaami yàlla yi kon lii dañ koy ñaan. ci yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy dimbalil mbokk mbokk mu mënti doon ci mbokk jullit yi wala beneen mbokk bu mënti doon ci nga xam ni doomu aadama la rek yàlla dëgëral leen kàttanal leen parce que yàlla dafa wax ci alquran ni yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi yàlla mu wax na ni yéen doomu aadama yi yéen nit ñëpp ñu ne waaw yàlla mu ne ñun yàlla ñoo leen bind ci ay góor ak ay jigéen ci ay population ay xeet yu wuute ngir ngeen xamante waaye nag jàpp leen ni kenn gënul kenn ndax ñëpp ci aadama leen jóge kon lii yàlla na ko yàlla dëgëral saxal ko te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëpp di remercier aussi président de l'association des tailleurs de Thiès di monsieur Seck euh, ki doon wax léegi c'est le premier sénégalais bi nga xamante ni moom moo bind braille ci li nga xam euh, ci alxuraan donc moom mooy imaamu INAFJA fi nga xam fële silmaxa yi nekk moo fay jàngale alxuraan ba pare aussi euh, am na propre mo école am bu nga xamante ni wax dëgg yàlla aussi silmaxa yi nga xamante ni am nañ gën nañu am jafe-jafe aussi moom daf leen fay récupérer euh, ba wax dëgg yàlla moom itam ñu ngi koy gërëm président merci beaucoup merci aussi à la presse ñu ngi leen di gërëm bu baax awa di gërëm vraiment presse bi yëpp ñi nga xamante ni teew nañu fii ak ñi nga xamante ni bokkuñu ci presse bi te teew fii di jox rendez-vous rek incha allahu at bu jot léegi bëgg nañu def lu mel nii pour vraiment euh, def suñu bilan presse woowaat presse bi ni ñu leen woowee tey noonu lañu leen fas yéene woowaatee euh, l'année prochaine incha allahu bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp doyen Lamine Diong ñu ngi lay remercier bu baax merci le président commission d'organisation euh, vraiment taxaw na ci organisation bu baax di remercier tous les membres Abdou Karim Ñing di remercier ñëpp ñi nga xamante ni daal participer nañ ci sama adjoint di euh, Serigne <laughs> ñu ngi remercier ñëpp daal di leen jox dox daje rek. voilà ça aussi def nañ ci travail bu am solo parce que am na ci ñoo nga xam ñu ngi fële en Italie saa bu jot dañuy ànd ak ñun ñu ngi def des réunions euh, vidéo conférence ñoom itam ñu ngi ñu suivre ci li nga xamante nii moom moo di direct bi. Euh, jigéen ñi aussi kenn demul ñu des ñu ngi leen remercier bu baax a baax soxna Oumy Niang explication yi leer na merci. invité yi aussi ñëw nañu ak en masse ñu ngi leen di gërëm bu baax soxna Oumou Diallo la doyenne ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di di la sant président ñu lay souhaiter bon retour en Italie vraiment conférence moom moo ko indi woon après conférence bi c'est destination AIBD merci à tout le monde merci encore à la presse merci merci et déwénati ñu ngi leen di jox rendez-vous l'année prochaine incha